alhamdulilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj xijaab euh, bi nga xam ne day muur xijaab intégr intégral lañ koy tuddee maanaam jigéen ñi nga xam dañuy muur seen yaram wépp ba mu daj mooy laaj ndax noonu la ko lislaam santaane wax ja gën a wér mooy déedéet jigéen day may nañ ko mu génne xar ak ay cati loxoom loola moom may nañ ko ko loola moom may nañ ko ko nag am na ñoo xam ne ñoom noonu lañ déggee am na ñoo xam ne ñoom dañoo dégg rek ne tabarkàlla jigéen daa war a muur ci si ay textes yu ñuy sukkandiku su ko defee nag loola dañ leen koy bàyyee kenn du leen inkaar waaye daal wax ja gën a wéer alquran ba muy sant jigéen ña ñu muuru daa wax ne illa ma zahara minha ba mu des li war a feeñ la war a feeñ nag borom xam-xam yi nee ñu mooy xar kanam ga ak ñaari tënk yi moo tax sëñ Tuubaa radiyallahu anhu ba muy wax awray jigéen dane ca al aljawharu nafis wa wa awratu rajuli duuna mayni ma bayna rukbatin maa bayna surratin wa rukbatayni ba ni ba muy tudd jigéen mu ne ama ama ama nisaau fa jamiul jismi yuaddu awratan moom la wax waaye nag mu leeral ne illa lasi tusni min al kafayni wal waci bam des lañ ca génne muy yaari loxo yi kon euh, voile integral am na ñu jàppee noonu am na seen i ak seen i ñu bàyyi leen ko waaye wax jañ jàpp daal ne moo gën a wér mooy euh, muuraay googu nag nekkul waajib xanaa ko koy def bu ko sartalee boppam te it bu ko defee day indi ay musiba wala mu indi ak jaxasoo wala mu indi yeneen yoo xam ne euh, loola day yàq penc mi su boobaa nag kooka dañ ko koy tere ngir loola waaye bu fekkee bu ko defee nag du yàqal kenn euh, incha allahu rabbi te jàpp ne ne lim def ci diine la ko teg su ñu bàyyee ko ko rek wallahu taala mu sawaaba laaj bi tege mbokk mi laaj koy jàng alxuraan ba dégg ñuy noddu ndax da ngaa war a ma waaw da ngaa war a arrêté njàng ma ndax lan ndax jàng moom waxtu wu ne mën nga ko te nodd gi wenn waxtu rek la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu wax ci hadis ba mooy isa samiatum isa samiatumul eh, mu mu muazzina yu azinu hmm. fa quulu misla maa xaala hmm. wala boog isa azana al muazzinu fa fa quulu misla maa xaala aw kama xaala sallallahu alayhi wa sallam leen bu ngeen déggee noddkat bi nodd dee leen répété li muy wax dee leen wax baat yi muy wax dee ko toppandoo kon loolu mooy ndigal kon bi ngay jàng alxuraan ba noddukat bi noddu léegi arrêté la alxuraan ji topp ndigalul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax alxuraan ji moom du weesu bu noddu gi daanoo ba la neexee continuer sam wala boo jullee ba noppi nga jàng nag kenn wërta wërta euh, jàng alxuraan ñuy noo déedéet dañ na rek jàng alxuraan lu baax la waaye bi nga jàngee alxuraan ba noddu gi jóg daa ndigal lu ñëw kon nag arrêté nga nga continuer ndigal loola yonante bi sallallahu alayhi wa nga la ci bu ñu noddu nga topp na noddu gi ba mu jeex nga ne allahuma rabba haasihi daawati taama wa salaati alqaima aati muhammad aati muhammadan alwasilata walfadilata wa darajata rafia am na ñu cee yokk loolu wajxalhum maqaaman maamudan allazi waata innaka laa tuxul fil miaad gis nga lam ca wax mu ne loolu ku ko def rek yeyoon ma yeyoon ko am na yeneen i riwaayaat wallahu aalamu bu laaj bi ci mbokk mi laaj ko xam ne soxnaam moo laal koo xam ne soxnaam euh, moo ko laal laal nii ci yaram ndax loola day day yàq njàpp wala bu doon ak julli ndax day yàq julli ga bu fekkee amu ca bànneex day dara nekku ci bu fekkee ne amu banneex bànneex kon su boobaa dara nekku ca waaye bu fekkee ba koo laalee nag moom góor ga da caafar far yëgaale bànneex te loolu nag yomb na ku yor sa soxna bu la laalee am nga sañ-sañ di ci yëg bànneex su boobaa nag xam nga njàpp ma day yàqu bu dee ci yoon al imaam Euh, bu dee beneen laaj bi mbokk mi laaj imam boo xam ne buy xutuba day nettali ay xissa rek waaw bu fekkee xissa ba dafa nekk xissa buy waare nga ne mën naa yokk nit ki ci diine mën naa koo delloo ci yàlla day kon baax na waaye bu dee xissa ba rek amul loola loolu moom deesu ko tudde xutba loolu moom deesu ko tudde xutba waaye loolu nag xam naa ngir man cee tontu dëgg-dëgg day fekk ñun ñu déglu xutba bi ba xam imam ja dëgg-dëgg lu muy wax ndax mën naa nekk xissa bëri na xissa yoo xam day waare Euh, fii xasasihim ibra li ulil albaab alxuraan day nettali ay xisa daan ba noppi daan kii xisa yii ma leen di nettali mën ngeen cee waaroo mën ngeen cee delloo ci suñu borom kon jëmmi nekk gi xisa rek moom ayut mi nga aju ci ban xeetu xisa mooy ay nettali bu dee laaj bi tegee mbokk mi laaj bu fekkee ne dangay julli ci ginnaaw imaam imaam bi di jàng ca kaw ndax dangay ngay jàng faatiha déedéet doo jàng dara imaam moom li fekk yaa ngi koy dégg muy jàng ca kaw alxuraan nee na wa ida quri'a alquranu fastami'u lahu wa anqitu la'allakum turhamun bu ngeen déggee ñuy jàng alxuraan nga ne yéen a koy dégg déglu leen te noppi ndax lee yàlla yërëm leen donte am na ci borom xam-xam yi nag yu wax ne fatiha moom faawu nga jàng ko loolu la waaye la gën a wér lay waxi jumhuur la ëpp ci borom xam yi nag lañ wax mooy loola moom mooy bu fekkee yow dong yaa julli mënoo ñàkk jàng fatiha wala yaa imaam wala yaay imaam waaye nag bu fekkee ne yow dañ lay jiite bu imaam day jàng ca kaw bul jàng dara moo xam faatiha la wala lu mu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon jiite eh, di di tari ca kaw am benn waay buy tari mu noppi ne waaw noonu naa daa am ku doon tari am ku ne ko waaw waaw mu ne ah, yow yaa ngi mel ne kuy xëccoog man alxuraan ji ah bu day jàng rek day leen noppi saxaaba yi nee boobu lañ ko mujj def ah, kon bu imaam day jàng rek insaatum maamumin la daa ijhaari imaamihi la sëñ Tuubaa wax wallahu taala aalamu sawaaba